Pero asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi waat nañ leen ziar leen rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun tey jii nag xibaar yi nga xam ne mooy bàyyi ko fii ci tubaa ci biir weeru koor gi ñu ngi koy présenté fii ci Ndar Fall di appartement Serigne ab Abdoulaye Fall xibaar tey ñu doore kook euh, visite bi nga xam ne xalifa général des mourides mu Mountakha Mbacké Bachir amal na ko ci jumaay tubaa ji mu nekk nemmeek boo xamante ni ni ki daaw defoon na ko ren jii tamit mu demaan fa nemmeeku liggéey bu am solo bi nga xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy amal di jox mboolem taalibe yi nga xamante ni dañuy yittewoo li nga xam ne moo di ndogu ci uh, bu waxtu wi jotee rek ñu mën leen koy jox loolu nekk lool sëriñ bi visité na ko ànd kooku mbooleem kilifa yi ak ki nga xam ne moom moo di jëwrinam sëriñ Moussa Nawel ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo yor liggéey yëpp daayira Muxaddamatul Xidma ginnaaw loolu sax kenn ci jëwriñ ñi nga xam ne ñoo yor daayira Muxaddamatul Xidma di sëriñ Abdou bu soo ma asta am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko rafetluwaat bu baax a baax ñëw gi nga xam ne sëriñ bi ñëw na ko nemmeeku si leen ñu ànd teewlu ay kàddoom. ñu ngi leen sant bu baax ci taxawaay bi di am mbégte nag mu ñu amoon mu ne yokkaan nañ ko soññee gu ñu amoon amaan nañ ko jaajëfal gu ñu jaajëfalawaat euh, ngir euh, suppikuwaat laxasaaywaat amaan nañ ko ndax jëmmam ju tedd ji di jëmmi Serigne Touba ni ma ko waxe woon daaw dañu daa amoon nañ digal ndax lii mi ngi tàmbaloon depuis 2005 ñu koy def waaye waxtu nekk kilifa yi daañu fi yónnee waaye nag ki fi nekk Serigne Touba déplacé ñëw seet si liggéey bi daaw lañ ko jëkk a am ñu amoon ko wenn septième jour ya tey ji ñoo am ko seet suba di seet di badar kon mel na du du du du du xam na ko kon nag moom Cheikh Mamadou Mountakha moomu ñor gi ko Serigne Touba ñor ba fukke fu nit nekk di yëngatu Serigne Touba mu def déplacement ñëw seet si la loolu daayira Moukhaddamatoul Khidma am nañ ci mbég mu rëy rëy rëy am nañ ci kontaan waaye nag daayira Moukhaddamatoul Khidma da waxtu nekk dañuy amaat soññewaat ndax ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mu leen bàyyi xel am ñu muy wax ci ñoom kaddu yooyu moom ñun soññ lay doon ci noonu ndax barab bi dafay dafay xolu murid yi di xolu jurid yi yàlla nattoo ñu ñu nekk fi nga xam li mel ne mag daa wax naa ku na tong ci xolum murid xolum nit ba nga ba nga warul la looloo tax fi na barab bi lu fi waay def rek euh, ñun dañuy jàpp ne ci lu baax ñun ñun la ko defal ndax waxtu nekk rek ñu ngi ci bàyyi xel lu bëree bëri moo boo xam ne si Amadou Mountakha bu jógee fële ñëwal boppam ba xool liggéey bi wax kàddu yu rafet rafet yi mu wax sëriñ Afia léegi liggéey bii de da sëriñ Tuubaa leen ko téyaloon bu mun leen ba mel ni mënta ñàkk taxaw gi ngeen koy taxawee nag ñi ngi le ne mën mënta ñàkk ci dara kon nag moom Cheikh Mamadou Mountakha duñ ma lu du sant ko gërëm ko ñaanal ko bu baax yàlla sunu borom dëgëral ko wéral ko sàmm ko ay wér moom yàgg fi ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax. mu nekkoon kàddu yi sëriñ Abdou bu soo Maasta ci euh, ne mekk nga xam ne sëriñ bi ñëwoon na ko doon leen euh, saytu liggéey daayira Muxaddamatul Xidma fa la ñu des ba léegi ni daayira Muxaddamatul Xidma bés bu yàlla sàkk wala at mu jot am na bës boo xam ne dañ koy consacré presse bi nga xam ne ñoo nekkee Touba invité leen ndogu euh, ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor gi lañ ko def ni ki ren ji dëppook àllarba mboolem presse bi nag wuy si leen mu nekk loo xamante ni rafetlu nañ ko lool waaye ñëwaat ci ni gën a yaatoo ci liggéeyub ndog yi nga xam ne at mu jot euh, ñu ngi koy def waaye di ci dépenser chaque euh, année euh, lu ëpp ñeent fukki million ci suñuy koppar loolu nekk liggéey bu yaatu boo xamante ni ñu ngi ko ànd ak mboole opérateur économique yi nga xam ne dañoo nekk ci bërëb bu sell bi di Touba ñu ànd teewlu kàddu yi sëriñ Abdou Lahad Bousso Matar ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ginnaaw ndogu loolu la. ndogo yi comme ni nga ko waxee yàgg nañ ko def depuis 2005 lañ ko tàmbale woon a def ci ndigalu Cheikh Salifou Mbacké waaye innovation yi moom année bu jot dana am lu ci dolli ko parce que mën nañoo wax ne bi ñu koy tàmbali ñu ngi ko tàmbalee woon ci benn bis par semaine mu nekk ajjuma di dem ba mu yàgg ñu di wax ñaari yoon par semaine di dem ba mu yàgg ñu koy def ñaari yoon yu mag ak yeneen yu ndaw par semaine dem na léegi ba bis yi yëpp ñoo tolloo benn bu nekk danañ ci dépenser lu xaw a bari gis nañ ne itam at mu jot day yokk parce que mi ngi tàmbalee woon de dépense bi ngi tàmbalee woon ci moins de 2 te daaw dem nañ ba egg ci 43 millions te bi ñu évalué fukki fan yu njëkk yi gis nañ ne suñ su weeru dee incha allah su fekkee yëfi delluwul gannaaw danañ romb 43 millions yi nga xam ne moom la ñu amoon ren kon naa ni nga xam ne noonu la murid gi baaxoo doxee rek ni lay doxee mooy doonul xaalis boo xam ne dafa tege nga xam ne dañ koy natt génne ko teg ko ne waaye su ñaq murid lay doon ñaq taalibe lay doon tàmbalee ko ci sët Sëriñ Tuubaa yi ci seen bopp ak nun ñi nga xam ne ñoo ngànk daay bi te nekk ci biir di fi liggéey ak ñeneen ñi nekk ci biti te Serigne Moussa Mbaye di ko coordonné ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp kenn ku nekk euh, day euh, waxtu bu nekk day làmb poosam di ci def budget bi nekkul xaalis bu tege ne toujours danañ ko natt nag danañ ko xayma ne xëy na dañ war a egg ci nangam léeg-léeg ñu romb loola léeg ñu yées ko tuuti comme ni budget baaxoo demee waaye doonul xaalis buy tege waaye mësuñu koo natt daal te egguñu ca at mu jot suñu nattee la ñuy natt yàlla danañu baaxe ba ñu egg ca ba weesu ko bokk gi jëfewul waaye nag su fekkee da ngaa bëgg a nekk eh, ñëw di fi liggéey si am na ay sart yoo xam ne moom la ñuy teg ci la ci njëkk mooy nga nekk nit koo xam ne ku jub nga sàkku la ci xam-xam ndax fi ñuy liggéey barab la boo xam ne desu bi taña ko li ngay def dafa war a tegu ci ak xam danañ la sàkk ceew nga xam lu sa faratay jëmm lu mu néew néew néew néew néew am ab yar ak i teggin boo xam ne da nga ciy mën a jëflante ak nit ñi ci ak dal ak ndànk yooyu mooy yi nga xam ne moo ci ëpp solo yeneen yi ci des nag comportement la yoo xam ne dañuy ànd ak yow di xool ci yow waxtu bu ñu gisee ci yow loo xam ne wuute naag ku war a jëflanteeg mbooloo rawatina barab bu demee nii nga xam ne façon nit gu ne daf fi ñëw kilifa gu ne daf fi ñëw suñu gisee lu mel yow ñun ñoo lay suspendre suñu bopp benn ñu Euh, woo la yedd la. ba léegi ci ndog loolu la ñuy des muy ndog bi nga xam ne waa Muxaddamatul Xidma moom lañu invité woon presse bi ginnaaw bi nag kenn ci ñi nga xamante ni bokk na ci ñi coordonné presse bi fii ci Touba di Abdoulaye Bamba Sall bu euh, l'observateur moom nag yëkkati na ay kàddu rafetluwaat bu baax a baax collaboration bi nga xam ne am na ci diggante daayira xaddimatul Xidma ak mbooleem presse bi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu koy def. ñu ànd teelu kàddu yi euh, Abdoulaye Bamba Sall ci tour presse bi. mooy euh, d'abord sant yàlla ñoom sant leen ci xalaat bu boobu ñu am ndax euh, invitation bi mel na ni ñoom sax ñun ñoo daal jaaroon suñu ginnaaw dañu ci soññ te lii ku la ci woo yaakaar naa ne yow yaa war a farlu say jéego jëm ca moom waaye du moom moo la ci war a soññ kon ñoom bu ñu amee xalaat boobu moom wan nañ nañu ne ñoom boole nañu ci seen bopp ndax ñoom lii ñuy liggéey ci dëkk bi la jëm ci Serigne Touba la jëm ci la jëm ñun ñuy ay journaliste waaye ñu ci bëri fii boo ko dee xool aussi ay taalib lañ ne ci dëkk bi kon bu ñu la wooyee ci waar woowu yaakaar naa ne sant yàlla rek moo ci nekk beneen bi mooy li nga xam ne ñun ci suñu wàll bu ñu ñëw loolu ñu wuysee mooy suñuy micro su suñuy big ak suñuy caméra ñun loolu la ñëw mën a fas yéene tàbbi ci waar yi nga xam ne ñoom ci la ñuy bay ndax ñun xëy na fañ ko mën a yóbbu ñoom seen kàddu mënu faa yegg seeni kii mënu ko faa wane muy loo xam ne tradition la comme ni nga ko at mu jot ñoom danañ ko ni ñuy invité ñeneen ñi noonu la ñu invité mu mel ni ñoom kon da xam ne amuñu ci xejj ak seen defuñu ko ci ku am ak ku ñàkk defuñu ko waaye ñoo jàpp ne ñëpp njabootu sëriñ bi la ku ci nekk war ngaa ñëw fii xool li nga xam ne mooy liggéey boobu nga teg ci sa bët rafetlu ko ànd ceeg ñoom moo tax ñun saa yuñ ci wooyee dañuy am cawarte ngir wisi ci loolu collaboration moom yemul sax ci ndogu yi mu xadimal xidma ak presse moom ñëpp xam ne yemul ci ndogu yi ndax am na lu bëri loo xam ne sëriñ ko dénk ci bi te taskati xibaar fu ne lay nekk te lu ne lay soxla moo tax suñu goj day laxasoo bët bu set mooy xam ci julli kii la moo xam lu jëm ci bàq ya la moo xam leneen liggéey boo xam ne ñu ngi ciy def moo tax bu yemut ci ndog yi tamit chaque naa ne wala man ci li ma seetlu boobaak léegi mosuma cee gis loo ne lu xajam la wala loo xam ne maanaam ñu disponible lañ ci côté boobu man mën naa jël rek euh, preuve ku mel ni Matar nga xam ne moo yor seen wàllu communication ku may sonal man la ci wàllum kii boo xam ne dañuy jokkoo ci waxtu wu ne ak heure bu nekk ci loo xamante ni lépp lu jëmal dëkk bi kanam la loo xam ne lu rafetal dëkk bi lu taalal dëkk bi la kon collaboration entre Moukhaddamatoul Khidma ak presse bi jàpp naa ne ci sama gis-gis bopp wax dëgg yàlla bu mucc ayib la mu nekkoon pàcc bi nga xam ne moom lañ jagleeloon daayira Moukhaddamatoul Khidma ci euh, àllarba ji ci ndogu yi nga xam ne moom la doon amal waaye it nemmeeku gi nga xam ne Serigne Mountakha Bachir nemmeeku na ko fa mbokk yi bokk na ba léegi ci xibaar yi déclaration bi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdoul def na ko ci turu xalifa général des Mourides doon ñaawlu bu baax euh, li nga xam ne moom moo di faat bakkan yu bari yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réew mi jamono bi mu nekk lool sëriñ bi ñaawlu na ko lool waaye ñaanaat ñi nga xam ne ñoo di jullit ñi ñu sax ci tuub jégaluwaat yàlla suñu borom waaye it euh, daal di ñaawlu yenn programme de télévision yi nga xamante ni dañuy def yenn yoo xam ne day wuuteek lislaam waaye di ñaawal ñenn ci tarixa yi loolu nekk lool sëriñ bi euh, yëkkati na ci ay kàddu ñu ànd teewlu ay kàddoom. bokk taalibe bi ak bokk jullit ak ñoom bokk réew ndax xam na ne Serigne dafa waxoon ne euh, ki war a digle war a tere ak noppam lu ne mën na ci juddoo kon moom fi toog xam na ne lépp loo xam ne war na ko wax rek bu doxalee boppam ba yëg ne responsabilité laaj na mu wax ca du ca tàggu kenn euh, lam ca war a dana ko ci wax euh, ne ko kilifa bu jëkkee daa defe digle gi tere gi rek koo koonoo mahal xaqi mahma kallafakumul am fa la koy teg mooy li mu war a digle ak sañ ko tere na ko kilifa bi daa defee rek mooy wax li war a wax nit ñi buñ ko diggee jëfe jëfe ko mu jariñ leen buñ ko déggu ñàkkuñ ko jëfe rek boobaa moom mu wàcc kon loolu mooy li nga xam ne mooy li ko boole diggam ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi kon mi ngi fàttali ci réew mi xam ne fan yii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 kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir yooyu mooy tëj xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci Touba ci weeru koor gi doon leen ko baaxee waaye ñu ànd ak yéen ci kuréel 1 bu daara Hizbut Tarqiyyah bu ci njàng am solo mi nga xam ne jàng nañ ko fii ci résidence Khadim Rasoul ci ni nga xam ne Serigne bi noonu lay dundalee weeru koor gi saa su ne sant leen gërëm leen dig leen daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf. laka la la la la la